dalleen ak jàmm ci leen kay xëy gën tey ci Rewmi FM Rewmi Quotidien njiitu bu Sénégal Macky Sall tontu na bataaxalu Idrissa Seck njiital parti Rewmi moom Idrissa Seck mi doon sàkku ci président Macky ngir mu feesal askanu yëpp xam dëgg-dëgg lu jëm ci accord bi dox ci diggante Sénégal ak Gànnaar ci wàllu accord ñeer wàllu gaz bi moom njiitu Rewmi yéen kat bi Rewmi Quotidien la mu jàppee lettre Idrissa Seck boobu la mooy koo xam ne kii daanaka xamul dara ci loo xam ne xamul dara loo xam ne jëm na ci ñaari réew rawat na ci wàllu yooyu lay moom président Macky ne kenn mënu ko waxtaanee ci suuf mel ni koy def wala secret secret du ci am tey du ci am ëllëg lépp loo xam ne am na ci accord rek dañ koy jaarale ci yoon moom Idrissa Seck yi ni cabinet la mu jàppee tontul président Macky Sall loolu kay daanaka du lenn lu may koo xam ne kii dafa bëgg daw benn bi li Ali Kray ne bi dañ ko fàttaliku sa sekke na président Macky Sall waxal ci li ni mel li ñu xamagul dëgg-dëgg lan moo ko wund ak lan la bëgg a def dëgg-dëgg mooy Bamba Fall maire bu Médina mi gouvernement bu Sénégal doon jàll ji ni ki démb gannaaw ba mu ñàkkee nijaayam observateur ne Bamba Fall dëgg-dëgg kay fi ñu toll nii buñ ko déggee ne dem na fekk ji président Macky Sall bu mu bett kenn ndax kaddu yi mu yëkkati ni ki dem ci teewaayu ilimaanu jëriñ bu Sénégal Mouhamed Boun Abdallah Dionne ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye maître Oumar Youm directeur cabinet bu président Macky Sall ak yeneen kilifa yoo xam ne président Macky Sall moo leen yabal ca Medina ngir ñu jàll ji maire bu Medina Bamba Fall mi ba mu ñàkkee nijaayam ne bokk nag ñoom ci coalition Manko Taxawu Sénégal koo xam ne kii teg nga sa tànk ca këram ngir jaale ko nijaayam ji mu ñàkk moom fi ñu toll nii amul benn xel ñaar boo xam ne bi mi ngi koy am bu fekkoon jël na ndogal ne day dem liggéey réew mi ndax fi ñu toll nii kenn ku ni cabinet ni ngir li ñu joxe ñu baram tuma maire bu Dakar ñu firndeel askan yi loolu pour dëgg la mu tax indi ki dem yéen cabinet avocat yu état bu Sénégal ci boppam ñi ngi sàkku ci kii di Khalifa Sall mu ndàmpee leen lu toll ci juróom benn milliards yu toftal ndax dafa tooñ dëgg-dëgg état bu Sénégal racca dool tamit agence judiciaire bu état bu Sénégal moom ci jamono jooju le di sàkku ci Khalifa Sall mu daal di koy jox lu toll ci 1,8 milliard ni wàllu ndàmpaay waaye moom Khalifa Sall ki ñi koy layal ni ki dem yemoon ak fukki fan ak juróom ba muy wéy di taxaw ci kanam atekat bëgg léegi ña ngay xool ñoom naka la ñu mën a def dëgg-dëgg ba setal seen client di ci liñ koy joxañe baaraama tuuma anam bi mu yoree caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru agence judiciaire bu état boobu Barthélémy Dias ci Walf Quotidien ñoom seen bopp sax am nañu ay fonds spéciaux te président Macky Sall ci boppam Barthélémy Dias ne dafa rek bëgg indi ak coxor jëmale ko ci Khalifa Sall waaye xam na moom Barthélémy Dias ne Khalifa Sall la doon doxal te loolu lay président Macky Sall Ousmane Tanor Dieng ba si Moustapha Niass ak ñeneen xam nañ ko bu baax a baax moom Barthélémy ne lan moo tax fi ñu toll nii mairie bu Dakar ci caisse d'avance la ñu dimbali ci Youssou Ndour Mbaye Ndiaye ak Abdou Mbow te las ne am na xabaar yu leer nañ yoo xam ne mi ngi firndeel dëgg-dëgg ne Ousmane Tanor Dieng nekk secrétaire général bu parti socialiste fi mu toll mi ngi waajal ngir samp ndëndëm ci élection présidentielle yi ñu dëgmal moo tax it moom Barthélémy Dias ne fi ñu toll nii Ousmane Tanor Dieng ci boom day tuur lëndëm coalition Benno Bokk Yaakaar rawatina président Macky Sall mi wax ne moom la ànd ak euh, wàllu tàggat yaram stade kay attaquant bu gaynde Sénégal du takku yi tax na ba fi ñu toll yéen cabinet Sadio Mané kay ci moom mi ngi sëkkatal dëgg-dëgg nag Mamadou Niang di doomu Sénégal bi nga xam ne bi moom mu doon football dugaloon na fa bit yu bëri bëri li dox ci diggante Neymar ak Cristiano Ronaldo moom daanaka ëpp na xasab ci lu jom ci Ballon d'Or 2018 bi nga xam ne bii ñu ngi koy xëccoo record ne fi ñu kay bu ñu xool dëgg-dëgg ci diggante ñaar ñooñu li kii di Cristiano Ronaldo li mu Neymar ci xëccoo